asalaamaaleykum mbokk internet yi safoo di seetaan site bi di wasaare société ginnaaw ba ñu leen nuyoo tey ji nag ni ngeen koy gisee ñu ngi fii ci rond-point case bi comme ni ñu fi indi rek mooy benn jeune bu wuyoo ci Tamsir Cissé nekkoon benn jeune boo xamante ni fii la doon jaaye ay téléphone mu yàlla dogal nag mu bokk ci ñi nga xamante ni dañu ñàkk seen bakkan ci li nga xamante ni moo di manifestation yi loolu moo tax nag ñu seet si ñi nga xamante ni ñoom la nekkaloon file euh, ci rond bi ngir euh, jébbal leen suñu njaal waaye euh, laaj leen ci mbir yooyu naka la demee waaye ay témoignage ci seen xarit boobu nga xamante ni moom moo fi bàyyeekoo dañuy nuyu xaritam bi nga xam ne moom la ñu toogal rek bu ko defee ñu daal dugg ci waxtaan bi kilifa gi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. maa ngi sant yàlla bu naka la. Moustapha Sall. Moustapha Sall lan la nga ci Tamsir euh, ngi sant yàlla ginnaaw bu ma nuyoo ñëpp ziar ñëpp baalu àq ñëpp di baal ñëpp àq di ko jaale. képp ku nekk fii ci rond point case bi waaye di ko jaalitam képp ku nga xam ne sénégalais nga donc li am solo moom mooy euh, ñaanal ko yàlla comme ni ko yàlla santaane mu ne bu nit génnee àddina yéen ñëpp ànd leen maasee wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te mooy ñun ñii ci yàlla la ñu woon te fa la ñuy delluwaat ñu ñaanal ko yàlla yàlla na yàlla jéggal ko te xaaree ko aljana barkeel ginnaam leeral kanamam yérem ko yére mboolem julit sàmmal ko njaboot gi mu fi bàyyi bañ mën ko mottali ay mbibitam bi jaay rasulillah salaam salaam Tamsir nag c'est un frère frère la woon xarit la woon soppe la woon nit ku baax la woon nit ku am jom nit ku nangoo liggéey nit ku jub nit ku yaatu kenn mësu ko àtte fii kenn mosul wax ne fekk naa ko muy xeex man maa ko àtte ñëpp la amal jàmm la preuve bi mu décédé bañ jot ci koor bi yóbbu ko ci dëkk ba mu dëkk pour denc ko fa fii nii ci rond bi ñaari biis ñoo fi déparé ak cinq oto yu ndaw xam nga loolu nag a lu tuuti loolu nag li ko waral moom mooy mbaaxam ak jëflanteem bu rafet ak nit ñi ko yàlla boole lool moo tax kenn ku ne yëg ne man mii kat kii ma daan jëflanteel jëflante bu rafet génn àdduna ci façon bii lenn rek laa ko deseel mooy dem gunge ko ba ci këru dëggam ga ñu ànd maasee defee ko ci defin wu rafet wu am solo ñu dem mbokk yañ fa fekk yëpp daal di kontaan Tamsir nag wax ci moom dana jafe du jafe ndax nit nag su génnee àdduna liñ war a njëkk a seede ci moom mooy jullit xaqan la woon kenn mënu ko woon ci jàkka ji waaye itam taalibe Cheikh xàqan la woon kenn mënu ko woon ci tarixa bi nga xam ne ci la bokkoon nekk nit ku baax nit ku yiw nit ku rafet xol nit ku sekk ak ñépp jàmm ku wax benn baat bi lay wax kon nag ñun ñoo ñàkk senegal moo ñàkk li mu doon xeex nag loolu ku nekk ci ñun war na ko xeex ndax injustice yàlla day wax ne ku toog ne man sama yoon nekku ci bis dana ñëw sa yoon nekku ci te yàlla kenn mënu ko dévier yàlla dafa wax ne wa taqu fitnatan laa tusibanna allazina salamu minkum xaasa mu ne fitna moytu leen ko baaxul te fitna benn rek moo gën a gaaw ci man koo yee gën koo mën a méttil mooy injustice bëgg a teg nit ki lu nga xam ne du dëgg du yoon yàlla nee na su tàkkee yow mi foog ne sa yoon nekku ci ah kay sa yoon a ngi ci ndax dina di nga ci impliqué wu parce que boo ne sama yoon nekku ci ñi daan wax sama yoon nekku ci ba mbir yi yegg si fii am na toog nañ ñetti fan wala ñeent yoo xam ne xëyuñ liggéey yor nañ xaalis bëgg a jënd dara duñu gis ku leen ko jaay yor nañ xaalis ci seen ay compte bancaire bëgg a dem récupérer ko mënuñ cee jot kon seen yoon mujj na ci nekk moo tax daal li ñuy wax ci Tamsir rek moom mooy jaale ko mbokk yëpp wax ne ku baax la woon ku rafetoon jëflante ak nit ñi la ku yiw la woon ku yaata woon kër gii ci la dëkkoon immeuble bu gudd bii ngay gis nii deuxième fële appartement bee moo nekkoon appartement am waaw mu nekkoon nit ku baax ñu faatee ko noonu mu nekk lu ñu métti nag ñuy wax ne euh, dañu bëgg état bi mu jël responsabilité am ubbi ubbi enquête ci dossier yi parce que itam damay seetaan ñenn ñu nga xam ne dañuy wax naan ah liñ fi yàq ci dëkk bi liñ fi yàq ci dëkk bi loolu métti na daa gaa waaye am na lu ko gën a métti ñi ci ñàkk seen bakkan moo gën a métti. ñu ci ñàkk seen alal mun nañ ko liggéeyaat am ko mais bakkan yi kenn mënul wax ba benn dellusiwaat dëgg-dëgg loolu gën a métti bu ñuy wax nañ jiital loolu loolu gën a métti ndax alal jee mun nañ ko liggéeyaat defaraat ko mu defet boo xam ne soo fa jaaraatee doo xam ne fii piagé woon nañ ko yàqoon nañ ko taaloon nañ ko waaye bakkan yi kenn mënut wax ba delloo si ci benn loolu gën a métti kon nañ ñu dimbale ci loolu bu loolu weesoo nag ñu ngi sant bu baax nag leader opposition bi ñu ngi sant ñëpp surtout yeewi askan wi taxawaay bu rafet lañ ci def rawatina député bii ñuy wax Samba Dang mu nga xam ne mooy député département Mbirkilane département boobu fala booy bi dëkk kere ba mbir yi amee ñun ñëpp ñoo ko seetaan mu taxaw assemblée nationale prononcé noowu Tamsir wax ko ne ci dese yi la bokk te ñu ngi lijjanti corps bi fas def autopsie bi jël ko yóbbu ko denc ko te noonu mu ko waxee woon ci assemblée nationale bi noonu la ko defee taxawaay bu rafet la ci am ñëw bokk ak ñun tiis wi ànd ak ñun si bi lépp day ñëw taxaw soo ba ngoon taxawandoor ak ñun ci hôpital ba ngoon jot ñu amaat yeneen nouvelle dem ñi ñu ne ñu dem leen ba suba ngeen ñëwaat bu ngeen ñëwee mu pare mu ànd ak ñun ci loolu. ba pare itam def ak titam bu rafet wala yeewi askan wi def lu rafet ay dara jox ñi corbillaawu ville de Guédiawaye bi ñu jël ko gratuitement jël ko dugal ko ci yóbbu ko yemuñ ci loolu mu daal di ànd ak ñun moom Samba Dang ak yeneen ñeenti député. ñu ànd ci cortège bi ñu dem ba ci virage bi mu dëkk ñu yóbbu ko ay bokkam jébbal ko boromam foofu noona ci seen taxawaay seen présence ñoom ñëpp loolu acte fort la bu boo xam ne dañ koy saluer boo xam ne daf ñu kontaan loo ndax suñu leen gistoon dañuy dafa am ñuy wax ne kon ah mu ngi nii voilà dee na ci moom moo perte ndax tey la taxoon mu wala ña taxoon muy xeex loolu lañ gëm ñoom waaye fii kenn taxut kenn di xeex. ñëpp république bi moom moo leen ñor moom moo ku ciy xeex rek république moo la tax di xeex parce que ku ne diw sàngam moo ma taxoon di xeex dangaa juum ndax diw sàngam moom balaa muy juddu wala balaa muy doon li muy doon république bi nekkoon na fi di dox te après diw sàngam moom tam république bi dafay continuer di dox kon kenn warul tax kenn di xeex te kenn taxutoon kenn di xeex seen suñu Sénégal moom moo taxoon ñuy xeex beneen bi ci te ma mën ko wax mooy loolu mu taxoon muy xeex Tamsir martyr la jihaad la jihaad dafa dee ci jihaad parce que tey dëkk ba mu dëkk village bañ ko yóbbu denc ko fa pour ñu am accès ca dëkk ba balaa ñuy yegg yoon wu fa jëm sax amut kon moom il a la raison li taxoon muy xeex xam na ko bañ yeggee itam ci village boobu ku fa sa portable wàcc mënoo koo chargé ndax village ba amul courant kon moom li taxoon muy xeex moom xam na ko te village boobu ci Sénégal la bokk dakaar gënu ko yeey ci Sénégal Kaolack gënu ko cee yeey Saint-Louis gënu ko cee yeey Louga gënu ko cee yeey feneen ak feneen ak feneen feneen. kon moom li taxoon muy xeex moom moo ko xam ndax villaasam ba amul yoon bu fa dem kon loolu wàcc xeex ko dëgg la yoon la amul courant bu muy chargé téléphone am su wàccee frigo waxi néppi télé waxi noppi kon loolu mu wàcc la terrain di ko xeex pour jot ci loolu dëgg la lu jaadu la lu normal la kon nag tabaarakallaahu su ma tënkee li ma bëgg a wax rek moo ñu ngi koy jaalewaat ñëpp waaye di gërëmaat bu baax mbokk yi fa fekk di gërëmaat bu baax waajuram yi ni ñu nangoo dogal gëm yàlla te xam ne fii la yàlla yemale woon bakkanam gis nañu ñi nga xamante ni dañu ñàkk seen bakkan ci li nga xam ne moo di manifestation yi bëri gi mu bëri ñiy bal réel lañ leen dóor ñiy accident la ñu def par euh, si oto est-ce que mën nañu xam Tamsir moom ci deminam ci an ban anam la waaw Tamsir bal lañ ko dóor ci biir fii lañ ko ko dóor ci biir waaw métti ci la ñàkkee bakkanam mu ngi amee ci côté police parcelle bi côté angle Sëñ Fallou bi foofu la amee exact ci angle boobu noonu jëm ci ci ci ancien seen kara bi te léegi utile bi nekk fa foofu lañ ko foofu la ñàkkee bakkanam te bal lañ ko dóor te ci biir lañ ko ko dóor te def nañ autopsie bi euh, député Samba Dang jël na papier yi nee na dinañ ko jëbbal seen avocat yi ñu def ci liggéey ba ci war incha allah waaye daal li ñuy ñaan état Sénégal mooy. ñun nag seetaan nañ police nationale génn di def déclaration wala di def conférence de presse waaye ñun ñaawlu nañ bu baax ñoom nañ waxee parce que ñun de man bi ma seetaanee conférence de presse bi en tant que sénégalais dama tiit dama rus ñaar laa boole damaa tiit damaa am gàcce xamul tax wax dëgg yàlla internet bi téléphone yi léegi ñëpp téléphone yëpp télé la. lu waay di def ci mbedd nit mën na ko filmer te doo ko gis ci balkoom lay taxaw wala fenêtre delloo fenêtre di filmer ci vitre bi muy jàll te doo ko gis nga taxaw di ko xool waaye doo xam ne sax yow kii fii am na ko la fii filmer ñun suñ seetaanee polise nationale génn def déclaration di jël ay image di couper di wane extrait bu ndaw ça nous mal dama tiit dama rus ñaar laa boole jël extre bu ndaw coupé ko nii naj ko def ko nii kii ko kii ko zoom ba mu tuuti nga wane benn nit bu taxaw yar fetal te vidéo yi nekk fii ñu gis waa fu muy déparé ci 4x4 pick bi cëpp ñu dem ba trouver gis ki ko jox arme bi mu wàcc di tiire ñu naan ñi kii professionnel la naan ñi kee ñemewul li muy def ñoom ñaar ñu ñëpp ñoo àndoon ci benn oto ñett lañ donc ñu gis image yooyu ñu dem ba Sénégal fii Sénégal dellu ginnaaw Sénégalu Macky Sall dellu ginnaaw bañ naan dañuy couper ay signalu télé di couper ay internet pour nit ñi bañ ci am accès ñu dem ba France 24 daggee ca lang ñëw jël vidéo bi jëf ko def ko spécial di ko décortiquer benn par benn loolu gàcce la pour Sénégal gàcce la pour presse Sénégal dama leen di interpeller nag ñoom presse Sénégal bi damay tudd ay sax ay tur ku mel ni Youssou Ndour dama koy tudd cité ko 2011 man maa ngi woon ci combat bi Macky Sall keroog bi Youssou Ndour taxawee ñu taxaw biir Dakar. mu naan on a droit de manifester sol benn costume ñu policiers yi ñëw di ko ba bëmaax loolu sama sama kanam la woon maa ngi taxaw donc mu naan fii kenn du fi def troisième mandat dañu war wàcc ñun su le terrain ñun xeex ko moo laaj ko ndax lañ doon xeex deux mille deux mille onze est-ce que moog li ñuy xeex deux benn la wala du benn kon su ci noppee complice la su fekkee nag ay intérêt moo tax mu noppi ci moom moog sénégalais yi ñoo koy seex après waaye ak digganteem ak boromam. waaye daal li wér mooy képp ku nekkoon ci combat bi doon xeex 2011 candidature troisième candidature Ablaye Wade lañ doon xeex dix ans après dellusiwaat nañu di ko xeex ku ci féete nag foofa taxaw wala nga naan da nga nëtër su booba sénégalais yi xam nañ fi ñu lay féetee danañ xam yooyaay kan jaru nekk fii di ko wax waaye maa ngi ñaawlu bu baax taxawaayu ñenn ci presse bi ci ay télé surtout parce que li ni nii ak ak ak sam ak yenn acteur euh, porteur de voix yi muy mbër yeeg yenn influenceurs yi danaa citer quelque am na ci ku ñuy wax xaw ma dem euh, Demba Diop xaw ma pa pot ki ñu gën a xam ci pot postum boobu maa ngi koy ñaawlu maa ngi koy ne du lu rafet beneen bi si topp mooy lutteur mbër yii muy Modou Lo di Balla gay di Boy ñaar di kii man benn mbër laa amoon muy Modou Lo du ma si supporté benn mbër bu du moom waaye bàyyi naa ko xam nga lu tax Modou Lo sareet la doon dawal fii ci digg dëkk bi mënu fi kenn moo duloo ëpp doole ci parcelle fii de ëpp fi doole gënu fi kenn juddu ëpput fi kenn fit waa parcelle dajaloo def ko liñ ko def ba mu nekk tey champion nekk roi des arènes bu fekkoon buy bëre kenn du dem benn promoteur du ko tëgalaat deuxième combat ba mu bëree combat bu njëkk ba ca lay ñàkk. parcelle yëpp di dajale seen dërëm seen ñaat dërëm man dama daan wax pour le dire bi ma nekkee ay 2003 2004 ba 2005. man taalibe laa woon daan ñibbi si fii Dakar fii la sama papa dëkkoon may dem ñëw di fi ñëw korité su ma ñëwaan wala tabaski su ma ñëwaan 300 yi ñu may jox ndékke duma ma ci jënd ndékke ba mu jeex dama ciy bàyyi benn 100 francs pour bu ngoonee ma dem école 10 fay 100 francs pour seetaan entraînement Modou man mii kon yàgg naa ko topp kon nag du ma toog ba tey nii Modou moom xëy di ma wax ne ma ku ne am na droit far fu ko neex waxul dëgg c'est faux parce que ba muy bëreeg Balla di bëreeg Eumeu Sène ba mu taxawee jàkkaarloo waa parcelles yi ne leen ku ne am nga droit far fu la neex waxutoon lool. daa waxoon ne parcelle 1 ba 26 parcelle 1 ba 21 xamul sax lu mu war a wax ngeen ñëw jàpp ci combat bi seen doom muy góor muy jigéen mag ñëw leen ngeen jàppale seen doom loolu la daan wax. kon duñ toog ba tey mu ñuy jàngal nu ñuy faree naan ku ne am na far fu ko ne waxut dëgg parce que ba muy bëreeg Balla Gaye waxut ko ba muy bëreeg Eumeu Sène wax ko ba muy bëreeg keneen keneen wax ko daa waxoon ne yéen waa parcelle yëpp kaay leen ngeen faral. kon du moo ñuy jàngal d' accord ñu ñëwaat tuuti ci génn bu àdduna ki nga xamante ni moo di Tamsir mën nañu xam ñaata ay atam ci ñaata la toll. Tamsir 91 la juddoo 91 ak léegi ñaata ah, ñaata at la yaakaar naa 34 ans la suma juumul donc kon 34 ans la am am na benn jabar am benn doom bu am 4 am na jabar benn jabar am benn doom bu am 4 di góor mu tuddee ko yonent Yàlla Muhammad muy Moustapha sallallahu alayhi wa sallam donc loolu mooy loolu loolu mooy Tamsir loolu la am benn jabar la am ak benn doom. waaw rek ngeen yëgee xibaar bu tiis bi nga xamante ni moo dal seen kii kaw. waaw man dama toog sama téléphone sonné su ma bee suma rakk bi ma nekkal fii Umar woo ma ne ma foo nekk ma ne ko man maa ngi nii mu ne ma yëg nga xaw xew ma ne ko lan moo xew mu ne ma Tamsir la ñu jam bal ma ne ko ku la wax loolu mu ne ma ku ñuy wax xaw ma xaadim kanji moom ma ko wax ma ne ko mbaa jamuñ ko ci fu garaaw mbaa ci tànk la ak yooyu noonu. mu ne ma déedéet nee na ma ci biir lañ ko jam ma ne ko wax ngaay de parce que pour dégg ku ñu wax ne diw bal lañ ko jam te ci biir lañ ko ko jam war ngaa xam ne musiba kon am na. ci dawee man directement jubal ma ne ko fan ngeen nekk fan lañ ko jamee mu ne ma ci côté croisement 22 bi noonu ma daw dem ñu ne ma du fii ma wax ñu ne ma ma dàccee ñu ne ma ci angle Sëñ Fallou bi la foofu ci côté hôtel bi foofu ma woo kim nekkaloon muy jim. mu ne ñu ngi nii ci taxi bi arrêté nañ benn taxi ba dugal ko ci di ko yóbbu hôpital Mame Abdou ma daw dem hôpital naka laa yegg si ci buntu hôpital bi nekk ñoom yeggut sax hôpital fi ñu ko jëmee xam naa ne bala bi ñu ko yóbbu afa mu yegg ci la faatu ci yoon wi nii lañ ci yem ñu jël ko ci ambulance bi noonu yóbbu ko hôpital Dalal Jàmm bàyyi ko fa denc ko fa pour mën a def autopsie bi ba ca lundi ba sam loolu vendredi ci ngoon laam ay 17 donc ci lañ ko yóbbee Dalal Jàmm ay 19 bàyyi ko fa ba lundi ba mardi ci lañ ko dóor hôpital Cité pour def autopsie bi nii daal la ñu ñàkkee sunu xarit déedéet laataa may yegg si xam moom kon dugaalewul bakkan ci hôpital bi bi ñu yegsee ñun ñëpp dañu taxaw ci buntu hôpital bi médecin yi nañu kii avant mu yegg si sax génn na àdduna ci la ñàkk bakkanam ñoom ñu jël ko dugal ko ci kii bi foofu denc ko foofu waaw nit ku baax wax naa ko ci njëlbeen gi nit ku baax nit ku am jàmm nit ku neex a dëkkal wax naa la ne la kenn mosu ko atte ku la mën a amut ku mën a taxaw ne la mos naa ko atte ak diw muy xeex te nit du wax ne nekk naa ci barab ñeenti at juróomi at juróom-benni at te awma lu ma fa naqari wala kenn tooñu fa loolu li muy symbolisé rek mooy ku nitu jàmm nit ku baax la woon waaw mos kenn mosul wax ne man mii la xeexaloon ma ma wala man mii maa ko doon atte ba muy xeex waaw loolu moom mooy liberté wóor waaw. vendredi ci bëccëg fii la ma fekk ci mbaar mii ñu toog man ak ki ñuy wax Pape mi la booleeg man. Pape Kaolack ak euh, Darame ku ñuy wax Darame ak ki ñuy wax keeba ñun la fekk ñu toog fële mu ngi sol blouson bu rouge ak tubéy bu noir toog ko ensemble blouson la sol maas waaw mu ngi fekk ñu toog ma ne ko jàmbaar xanaa da ngaa bëgg a dem ca ca ca kii ba manifestation mu ma déedéet man deew ma de te c'est la première fois manifestation yii laa ko door a gis muy dem manifesta muy dem ci manifestation jeudi bi. Euh, vendredi bi mu bi mu génn àdduna fii la ñu romb même pas deux heures de ñi woo ma ne ma yëg nga li xew ma ne lu xew ñu ne ma Tamsir lañu jëm parce que man xalaatuma woon ne sax dem na waaw waaye daal liñ mën a wax te wan ko wax mooy gor la góor la garmi la jàmbaar la te ci toolu xare la dee ñaanal ko yàlla yàlla yërëm ko xare ko aljana yeesal man dem ci moom loolu rekk moom la ñu man di yëg daal ne ñàkk nañ suñu waay ñàkk nañ suñu frère ñàkk nañ suñu xarit ñàkk nañ nit baax dañ ko daan tooñ fii classe am morom ñi man maa ko xaw mag waaye ñi moromante dañ ko daan tooñ naan ko l'homme de douze métiers lañ ko daan wooye ndax lan ndax ndax bëri ndax am jom ak la dañ ko daan wax yow jaay nga lu ne waaw lu nekk dugg nga ci ndax loolu loolu li muy symbolisé rek mooy ku am jom la woon ku bëgg ku façon yéen dundee ña xam la woon ku gore la woon jàmbaar piir la woon waaw kàddu gu mujj gi moom mooy naqarlu rek am naqar waaye di ànd ak gëm yàlla waaw loolu nag donc pare nañ pour def ko waaye dama jàpp ne loolu am na ñu ñu ko war a defal muy euh, opposition bi parce que wolof day wax ne euh, loo mënul danga koy bàyyi ki ko mën te itam fu sa loxo jotiwul da ngay bàyyi ka fa loxoom joti mu defal la ko ñu ngi leen koy ñaan ñoom nañ jël ay seen avocat yooyu ñu jël nañ jël dossier Tamsir bii ñu boole ko ci bu ëllëgee suñ defee enquête ñu xam kan moo ko rey ñu xam ci yan circonstance lañ ko reyee soo ëllëgee itam ñu dédommagé seen famille parce que itam mérité na ko parce que jàmbaar la te ku bàyyi jabar benn jabar bàyyi benn doom bu ndaw buy am 4 ans war nga xam ne am na avenir yoo xam ne moom moo ko seere woon famille am tey kan moo leen di jox xaru tabaski moo leen ko daan jëndal. moo nekkoon seen taaw wala. déedéet du seen taaw. du doon seen taaw waaye responsable la woon boo demee tey ci kër ga fekk nga mu tabax fa bâtiment bu rafet ci xale bu ndaw donc bi mu jógee ci daara ji yàggul donc loolu nag ku ci wut ku ko ciy wut dana jafe waaye ñun yàlla lañu wutal ci ci famille am waaye daal ñu ngi wax ne wax dëgg yàlla leader yi ak opposition bi. nañ porté combat boobu ñu jël dossier Tamsir bi ñu boole ko ci dossier yi ñu def autopsie bi ñu topp ki ko rey bañ xam kan la suñ ko waree daan ñu daan ko loolu daal ñu ngi koy ñaan état Sénégal di ko ñaan leader opposition bi tam ñu def taxaw ci seen xar seen tànk tubay def ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne moom lañ ñëw kerek taxaw ko bokk kook ñun naqar wi ànd ak ñun dem ba ci village ba ñu jébbal ko boromam. jërëjëf soxna si. kilifa gi maa ngi lay nuyu. siyaar naa la. naka la. Assane Ndiaye. Assane Ndiaye gannaaw ba ñu la jaalee sa xarit bi nga xamante ni moo di Tamsir Cissé mu yàlla dogal mu ñàkk bakkanam ci li nga xamante ni moo di manifestation yi yan kàddu sedd rek nga ñu mën a jox ci moom. waaw Tamsir Tamsir de ku baax la wax dëgg yàlla ñoo bokkoo nekk fii mooy comme lu Oustaz wax Oustaz wax na lépp. Tamsir ci kaf ak ree ci lay xëy ba waa ci jot mu dem ñibbi amul feek kenn xaar ma yàlla waaw maa moom dañoo yabante woon. kaf ak ree lañ daan sekk mosuma koo kafe ba mer mosuma wax tamit lu ma warul wax génn àddunaam nag metti nañu ba ci kanam suñu borom ak ci anam bu mu wàññeekoo wax dëgg yàlla man keroog bi muy dem fii la ma romb ma toog. ci mbaaru berte bii la ma romb. bi mu demee ak fi ma woowee ne ma jam nañ ko su matee ay 15 minutes ci lay yem. waaw jam nañ ko blessé pour pour man dañ ko blessé ma ne xaaral ma dem hôpital ma ñëw ba egg laa laajte ñu ne ma génn àdduna ma am lu ma métti nag wax dëgg yàlla am nañ lu ñu métti ba ci kanamu yàlla. Sénégal gi tamit ni muy doxee ah wax dëgg yàlla man de ku ci tiitul man Assane tiit naa ci waaw tiit naa ci ba ci kanamu sunu borom parce que tamit sunu frère Tamsir Cissé dem nañ ko bal ci ay manifestation metti nañu mais. xëy na suñu borom moo dogaloon ne dundam fii lay yem nit ku nekk mënoo romb sa bis mais li ñuy ñaan euh, opposant bi waaw leader yi nga xam ne ñu ngi si comme lu Oustaz wax maanaam fañ mën a dem pour porte pelanteek la ca war ñoom ñu gën ñu ko jekku ñu ngi ñaan ñu taxawul ñu si kan nu mu waree ba ëllëg xam nga ñu mun a taxaw fameem waaw ah, parce que tamit soutien de famille la woon du taaw gaa dëgg la mais maanaam place bu am dooleel taxawoon ci biir fameem waaw wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal nag waaw yàlla na fi mu jëm gënal ko fuuf fi mu jugee waaw ñun nag moom am nañ lu ñu metti waaye tamit yàlla bu soxlaa waaw jàmm day ñàkk merci beaucoup ñu ngi la koy jaale bu baax. waaw yal na yàlla nangu siyaar. Euh, sëñ maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay naka la. Matar. Matar gannaaw ba ñu la jaalee sa xarit bi nga xamante ni mooy wuyoo ci turu Tamsir daal di koy faat ci li nga xamante ni moo di manifestation yi yan kàddu sedd rek nga ñu mën a jox ci moom. waaw ah, sant yàlla rek xam na yàlla nii la tuddee euh, yàllaa ne woon ci lay dee ñu ne duñ def lu gëm yàlla sant yàlla tamit la def. jege woon nañu trop am na nuñ meloon ak moom lool lool lool lool ba tey da ngay dañuy toog di ko imaginer parce que fii ma toog nii fu fii la daan toog mais ni ku ni ku baax la woon ni ku yaatu tamit fii soo fi ñëwaan moom ngay njëkk a xam ku ñëw fii moom ngay njëkk a xam parce que ni mu meloon ak nit ñi ak nu mu doon dugalante ak nit ñi métti nañu nag métti nañu mais nag sant yàlla dong lañ mën a def waaw sant dong lañ mën a def waaw mais ni ku baax la woon ni ku yaatu la woon jullit la woon taalibu Cheikh la woon waaw nit ku baax a baax wax dëgg yàlla métti na nag métti na trop mais dañuy sant rek waaw. naka rek ngeen yëgee xibaar bu tiis bi nga xam ne moo daal di dal ci seen kaw. waaw man de dafa fekkoon sax maa ngi fi toog ñi woo ma yaakaar naa ñu fa njëkk man mii si laa bokk ba yàggee tamit ay daal la man maa ko daal yu mu soloon ba muy dem daal yooyu man maa ko après ba mu faatoo ba ñu waxee ba ñu wooyee nañu tam si dañ koo jam. man jam bi sax maa ngi xalaat ay loxo la wala tànk la wala affaire la mais ba ma demee ba yegg ki nga xam ne moo ko dugal ci hôpital moo génn ma Tamsir Cissé dee na ko noonu loolu mënul nekk mu wax wax ma ne ko mënul nekk dama insisté sax damay dugg ci hôpital bi ñu ne ma doo dugg parce que dama xamoon Tamsir Cissé ni mu meloon ak ñun ak ni mu meloon ak marché bi moo tax suñu ne ma Tamsir Cissé dee na ci condition yi rek dama ne noonu mun a nekk parce que Tamsir Cissé moom ñu daan ñuy yedd fii nii ci la bokk. ñu daan ñuy yedd fi ay amul njëriñ jëru ngeen dem nangam nangam moom ñu daan ñuy yedd si la bokk moo tax ba ñu waxee tam si si sa gaañu na dama ne mënta ne parce que lii nii yaakaaruma woon ne tam si si ku ci war a dee la moom yàlla seeri na ko métti trop la def. fan ñi nga xamante ne nii toog ngeen gisu leen seen xarit boobu nga xamante ne yéen a deen doon place di waxtaanee yu bëri lan rek la def ci yéen. métti wallaahi asim métti damay tëdd bu guddi ma jóg toog di ko xalaat wallaahi asim fu may dikkee daal dafa dafa dafa bëri dafa bari yàlla xam na ko chaque instant dama koy xalaat di ko xalaat ci lu bëree bëree bëree bëri nu ñu doon dugalante nu ñu doon jëflante këram a ngi nii suñ demaan ba yenn heure yi sax dañ laa dem néegam toog waxtaan ñu meloon ak ñun tam si Sénégal manqué nañu manqué nañu manqué nañu waaw métti na tamit. souvenir rek nga moo la gën a tuus si Tamsir moomu. Tamsir maanaam su su suñ demaan ba nga xam ne ñu ngi toog fii nii comme ay match am wala làmb am. tey su nit ñi ñëpp faree fii moom day contre foofu parce que lépp ndax gi bëgg débat fii su fi nekkaat nii nii fii soo soo soo dikkaan fii nii da xam ne carrément Tamsir Cissé mi ngi fi mais tey soo xoolee marché bi nu mel nii rek nga xam ne manqué nañu nit ñi dañuy romb fii sax dañu xoolaat bu baax a baax ak ni mu naan doxalee ak ñun yàlla seeri na ko manqué nañu daal manqué nañu lool lool lool waaw dañuy xalaat ci moom lu bëree bare bëree bëree bëri ay souvenir Tamsir Cissé ak ñoom ak ñun suñ noo koy wax du jeex wala ay jeex qualité wala yan jikko rek moo la gënoon marqué ci Tamsir Cissé moomu. yaatu yaatu ak baax ak nekk jullit tamit lii coow lii bari bari bari bari heure julli fu mu ko fekk mu waaxu dem keroog suuf bi muy gaañu dafa jul tàkkusaan pare doog a dem diggante tàkkusaan tamit si la gaañu te boobu mi ngi dem nee na su àdduna bi commencé mu dem ñëw si xadaru jumaa bi mais yàlla ne woon du ko yeggale kon kooku bu ñu ko fàtte moom Tamsir Cissé ay léppam souvenir la si ñun. léppam léppam souvenir la ci nekk na koo xam ne mënuñ koo fàtte qualité am la wax lépp parce que Tamsir Cissé qualité mbaax kese la mbaax moom du romb mbaax waaw mbaax kese la. merci beaucoup ñu ngi la koy jaale bu baax. waaw ñoo ko bokk ñoo ko bokk jërëjëf jërëjëf. maa ngi lay nuyu. ok ñu ngi lay fay. naka la. Mamadou Sall. Mamadou Sall nga ci Tamsir Cissé gannaaw ba ñu la ko jaalee ñu bëggoon rek nga jox ñu ay témoignages ci sa xarit boobu. waa yéen ñu ngi leen koy jàll Tamsir moom defe naa ne képp ku baax rek mën nga ko jàll sa bopp parce que dafa nekkoon koo xamante ni ku yàlla baaxaloon la nga ni lu raaroon ci jeunesse mooy xamuloon lenn lu dul liggéey jaamu yàlla ñun dañ ko doon wax ne ñu ci ba dañ ko doon tooñ naan ko yow liggéey bu ne jaar nga ci loolu li ko waral rek mooy jomam ak responsabilité bi ko yàlla eh, joxoon ci famem fa nekkoon koo xam ne li mu représenté woon ci famem euh, gëwuma ne euh, dinañ ko di yàlla yàlla doonte te yàlla tëddiwul dara waaye dina manqué lool ci famem parce que moom dafa boole woon ñaari liggéey dafa boole woon jaay téléphone même temps boole kook ceg-ceg mi parce que ndax responsabilité bu dis bi mu gàddu woon ah di leen ko jaal yéen ñëpp di ko ñaanal yàlla njéggal yërmande xëy na ni mu demee metti na waaye nag boo dee jullit da gëm ne yàlla fii la ko tuddee woon ne fii lay yemale fanam ñii la tuddee woon ne noonu lay demee waaw ala kulli xaalin bés boobu mënu ko woon wees ni mu demee woon noonu rek la waroon demee loolu mooy pas-pas ci jullit ñu ngi nangul yàlla ndogal bi di ko ñaanal yàlla njéggal ak yërmande. naka rek nañ leen annoncé xibaar bu tiis bi nga xamante ni moo daal di dal ci seen kaw. waaw parce que Tamsir maag ñoom ñoo ànd ñun ñii presque ñun ñëpp ñoo àndoon jeudi bi xëy na sax manifestation comme ni ko booy di defee. Euh, nekkul woon ñun mooñ taxoon jóg wala dara xëy na nag kenn ku nekk am na yëg-yëg boo am ci réew mi mooy yéeg ne réew mi ni mu tëddee du noona ni mu tëddee réew mi du noona jeudi bi ànd nañ dem li ñu demee xool ful beeg yooyu bi mu ñibbisee moom dafa julli ñaari rakka nee na dafay sant yàlla parce que mënoon a des ci jeudi bi moom Tamsir nekk te yàlla tudd ko woon ci bés boobu vendredi bi la doon xaar ci vendredi bi julli na. al euh, aljumaa ba pare julli tàkkusaan moom taalibe cheikh la woon da daan dem xadaratul jumaa léegi mun na day génn doxantu pour xool xëy na kon manifestation yu bu ko woon waaye nag yëg-yëg bi mu amoon ci réew mi parce que xubul watani min al maan dëkk bi ni mu tëddee kon xam ne ne waru ko tëddee parce que alal ji demee ne côté justice bi ñu ngi koy utiliser euh, ku ne lépp ngi dox rek mbir mi dafa dalul sa kaw waaye ni ñuy doxalee réew mi alal jee comme li ñëpp bokk du xëy na yëg-yëg boobu moo ko yóbbu woon comme moo yóbbu woon ñëpp xëy na nag ci loolu la ko yàlla euh, moomee waaw waaye nag euh, li ko waroon yëpp def na ko li ko waroon ci diggante mook nit ñi li ko waroon ci diggante mook boromam mu ngi ci doon góorgóorlu kéemtulaay kattanam vendredi bi bi ñu bi mu julee tàkkusaan ba pare xam naa ne dafa doon dem pour xool ñëw pour ñëw war dem xaratul jumaa euh, ñun ñoo àndoon ñu continuer joor bi man daal la ma toog rek sama téléphone sonné ñu ne ma Tamsir jam nan ko ah ma ne am na ne sonn na trop ma toogaat une minute ñu woo ma ne ma Tamsir noppaliku na nii daal lañ ci yem waaw ah, nii daal lañ ci yem quoi. yan jikko wala yan qualité rek moo la gënoon marqué ci Tamsir moom. waaw Tamsir ouvert am moo ma gënoon marqué moom mooy Tamsir ko waxtaan ak da ngay defe ne Tamsir Tamsiru boppam Tamsiru sa Tamsir kase la ñëpp nag. toujours dañ ko daan wax ne ko maanaam du daan tàng xam lu yittee doomu aadama fan yi rek la jóge ko Saalum ci benn xew bu mu fa demoon maanaam amul luñ koy xewal muy luñ koy yégal muy xewu bànneex wala naxar te Tamsir euh, taxawu fa moo tax macha allah dëjëm lu dal xel la parce que toujours dañ koy la barki démb ñu ngi koy wax ñoo ngi ne ñun yàgg nañu fii parce que fii presque dañuy def fii 10 ans euh, xëy na am nañ fi ay décès mais décès bu mel ni décès Tamsir ak mobilisation bi ci gars yi def moom la première fois moom nga gis ko fi moom sama parle waaw waaw. merci beaucoup ñu ngi la koy jaale bu ñu ngi xaar ci état donte tey amul ci yaakaar ci bii fi ne. Euh, parce que mois de mars yi fii la ñu fekkoon euh, dese yi fi amoon fekk ñun ñëpp euh, fii la ñu fekk mais gisuñu benn effort bu ci justice def donte amuñ ci moom yaakaar waaye nag ñoo ngi xaar ci même bu dul état bi état bi ñëwaat bu def liggéey bi war ndax dara Tamsir baña neen ñoo ngi ñaanaat kilifa diine yi tamit ñuy anticiper parce que jeunesse bi moom taalibe taalibe Cheikh la woon amul lu mu daan tànqamlu pour Tivaouane du ziar du dara. dëgg yàlla nag fi ñu yéegee nañu ñun suñu ci di fi nii taxawu nañ ñu mooy ñu anticiper mbir mi balaa mbir mi di yegg si fii parce que tamit euh, wax dëgg yàlla métti na trop toujours nga gis sa njaboot di dee te wax dëgg yàlla bu ñu waxee rek ñu ne kilifa yi ñu ngi wax ci suuf parce que tamit Macky man jàpp naa ne suñu président bi fi ne nekkul ku ñu war a waxee ci suuf nañ ko doon defee na ko maam Abdoul Aziz da baax doon defee bu ñu gisee ne réew mi fi mu jëm baaxul ñu woote bi ñoom ñëpp mu def déclaration bi war jox opposition bi wax ak ñoom li ñu war a wax ak moom wax ak pouvoir bii li ñu war parce que yàlla jox na leen doole ji yonent bi dafa ne man raa minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi ñoom loolu pouvoir boobu yàlla jox na leen ko mbir mi mun nañ ko saafara ci seen loxo parce que yàlla jox na leen kattan parce que di ëpp ci Sénégal seen njaboot lañ kon nañ di anticiper mbir mi balaa ñu yegg fii ñu am ci taxawaay wuutu yàlla ci jàmm ñi parce que njaboot lañ njabootu yàlla lañ nañ wuutu yàlla ci jàmm ñi mooy ñu wàcc seen daraja tuuti même bu jëree ñu déplacé wu daf koy jar parce que tamit wax dëgg yàlla jeunesse bi sonn nañ ci ñoom bu ñu wootee seen xew yi ñëpp ay dagg seen yitte indiwaale seen am-am si li ñu am yëpp ñëw dafa taxaw seen xew yi ñu rafet donte tey bu ñuy sant état la ñuy sant wante nag fi ñuy xamee ne ñun am nañu kilifa. mooy bu ñu xamee ne mbir mi fa mu jëm baaxul ñu teel a anticiper def ci taxawaay ba war nga xamante ni benn bakkandut yàlla dafa ne benn bakkan bu gëm yàlla boo ko reyee fakk annama qatala naasa jamia dafa mel ni ki rey nga aalam bi yëpp parce que yàlla dafa doomu aadama dafa am lu mu représenté ci ñoom kon nañ nañu wuutu yàlla ci jàmm mi taxawal am taxawaay ba maam Abdoul Aziz da baax daan taxaw dafa rusu sax toujours bu situation yi amee rek ñu génne mel ni ñun surki maam Abdou amuñ fi fi ay ay ay kuutal nañu wuutuwaat yàlla ci jàmm la war ci ñoom xëy na xëy na lépp mënuñ ko def wante nag ñu am taxawaay bu toll ni ñëpp danañ xam ne ñii kat la leen war def nañ ko Macky Sall moo def li ko war incha taala. merci beaucoup ñu ngi koy jaale. merci beaucoup